parce que depuis un an, condoléances les plus attristées. Et nous vous promettons que ces crimes de plus dans le registre, dans le répertoire de Macky Sall ne resteront pas impunis. Chers compatriotes, nous venons de vivre une journée qui s'inscrit dans la droite ligne de ce qu'on a vécu il y a à peine un an et demi et qui est consécutif à la gestion autocratique ou la tentative de gestion autocratique du pouvoir d'État par Macky Sall son clan. De quoi est-il question? D'exercice des libertés les plus élémentaires inscrites dans notre charte fondamentale qu'est la Constitution et relevée dans toutes les lois librement votées dans ce pays, parmi lesquelles la liberté de manifester, la liberté de s'associer, la liberté d'aller et de venir, mais également la liberté de culte. Yewi Askanui a déposé une information puisque de par la loi et par la Constitution, il n'est absolument pas question d'autorisation. Une information d'une manifestation qu'elle tenait à organiser pacifiquement pour protester contre cette dictature de Macky Sall, instrumentalisant l'administration et la justice depuis dix ans qu'il est à la tête du Sénégal pour écarter ses adversaires politiques de toute compétition. Yewi Askanu donc a tenu à organiser une manifestation pacifique. Manifestation similaire organisée il y a à peine dix jours au même endroit, ayant regroupé, ayant réuni des milliers et des milliers de manifestants dans l'ordre, dans la discipline, dans la paix, sans qu'il y ait eu un seul incident. Il se trouve que l'administration de Macky sous la dictée de ce même Macky Sall, a voulu interdire cette manifestation. Il est évident que la manifestation a eu lieu et a été même beaucoup plus visible que si elle avait été autorisée. Aujourd'hui, Dakar a cessé de fonctionner durant toute la journée. Mais tout le Sénégal, j'allais dire, a été bloqué durant toute la journée. Si la manifestation avait été autorisée, elle se serait tenue uniquement à la place de l'obélisque, dans la discipline et dans l'ordre. Il n'y aurait eu ni blessés, ni perte en vie humaine. Les gens auraient délivré leur discours et seraient repartis tranquillement chez eux. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui et de la responsabilité unique, exclusive de Macky Sall. Alors je voudrais d'abord m'adresser à Macky pour lui dire qu'il un président assassin. Après avoir assassiné 14 personnes lors des événements de mars, février-mars 2021, le voilà qui ajoute trois autres victimes à son répertoire en juin 2022. tous ces crimes ne resteront pas impunis. Vous vous souvenez bien qu'après les événements de 2021, il avait annoncé une commission d'enquête censée faire toute la lumière sur la question. À ce jour, point d'enquête, point de commission. La meilleure manière pour Macky Sall d'enterrer un dossier gênant, c'est justement de promettre aux Sénégalais de mettre en place des commissions d'enquête pour faire la lumière. Nous voulons dire à Macky Sall que lui et son gouvernement et son général qui dirige la gendarmerie son des assassins. Parce que ce qui s'est passé, notamment dans le sud du pays, relève d'une volonté manifeste d'un régime de tuer sans raison. Ce qui s'est passé à Bignona, il n'y avait même pas de manifestation à Bignona, puisque même une demande d'autorisation de manifester n'avait été déposé. La manifestation s'est tenue à Ziguinchor. Voilà que la gendarmerie va trouver des militants au siège d'un parti. Qu'un gendarme prend le temps de viser, d'ajuster et d'ouvrir le feu sur un jeune garçon innocent de 24-25 ans pour l'abattre, cela relève d'un crime. Et c'est parce qu'il a reçu l'ordre de le faire. Depuis hier, nous avions eu des informations venant de l'intérieur que le général Moussa Fall aurait donné comme instruction à ses gendarmes d'user de tous les moyens et que lui, il les couvrirait et qu'il assumerait. Et voilà le résultat de cet ordre. La même chose s'est passée à Ziguinchor, où on a tiré à barre réelle sur des manifestants désarmés, atteignant l'un au cou qui vient de succomber justement à ses blessures, l'autre au dos et le troisième à la jambe. La question qu'on pose, pourquoi à chaque fois qu'il y a des manifestations au Sénégal, c'est dans le sud du pays que Macky Sall et sa gendarmerie s'autorisent à tirer à bal réelles sur les manifestants. Les manifestations ont été beaucoup plus virulentes à Dakar il n'a pas été fait usage de tirs à balles réelles. Mais quand il s'agit de la Casamance, on croit pouvoir tout se permettre parce que les Casamancés, aux yeux de Macky Sall, ne sont pas des êtres humains. Macky Sall vit une relation de mésestime et de haine vis-à-vis -vis des Casamancés. Aujourd'hui, des sportifs casamancés sont adulés. Il aurait suffi qu'un seul d'entre eux décide de s'engager en politique et d'être opposant pour être traité tout de suite de rebelle. Cela reflète la considération que Macky Sall porte à la Casamance. Vous comprendrez bien l'ironie. J'en fais les frais. Jamais au senegal un homme politique n'a été aussi haï, aussi détesté, aussi diabolisé sur son culte, sur sa famille, sur son appartenance régionale, ethnique. Jamais dans l'histoire de ce pays, on a vécu cela. Et aujourd'hui, Macky Sall est prêt, ou alors tente de monter tous les casamancés pour qu'il y ait mouvement de contestation, de protestation pour assimiler tout cela à de la rébellion et reprendre un histoire qui est largement derrière nous